benn ñaar li ngeen fi li ngeen fi résumé lépp bëggoon naa dugg ci wàllu revue de presse beeg bëggoon naa wax voilà xam nga lu fekkee ne wàllu étudiants yi lu jëm ci wàllu étudiants yi ñoom comme par par exemple ni ñuy communiqué li gën a sonal président Macky Sall ci la bokk gis ngeen ni soo ko bëggee da nga wax dëgg père gis naa ko doyen daf na benn analyse bu solo mais am na lu ma jàpp si bureau xam ne ne dem red black bi mu toogee fii ak ak xurum xaax ak kii ak bi ñuy waxtaan père nee dafa am tuñu jàpp nee na Sénégal on parle lan nga noo ko waxee père nga ne change mm-hmm. voilà loolu la dañuy toog ci débat télé damay toog man toog di séance ay ree damay jàpp problème Sénégal du yi ñuy wax ni dañuy toog def ay débat waxtaan wax wax mu jeex après ñu tëj non non non Ali Kalla ji problème Sénégal hmm, wax li muy wax ni ay gars yi jàpp nañ fee ak kii mais loolu tey ñi ñi am problème bu ñu demee ba ñu bëgg a jël leen a jàngal à distance na leneen lu a xóot loolu toog si kër am na ko xam ne mën naa am lu mu correction yaa ngi dégg mën naa am portable mën naa am connexion mais biir këram dafa soxla stabilité loolu tax université dafa baax campus xale yi ji am njàng boo demee Chine loolu la ñu rawee dañuy dem xool espace bu yaatu fu kenn néewut sëñ Sall moom loolu defee doomu aadama yi nit ki dafa soxla benn stabilité mais réew mi mi méttee mënoo nekk étudiant nga ñëw bàyyi say parents yow bu nga jógee université ñëw sa kër toog di jàng mais ngay yeew gis père pa bi di am problème dépense sa doo ko mën faj mais université lañ leen war a bàyyi ñu jàng fa dañu war a jàng loolu c'est le droit le plus absolu nañ bàyyi yi ñuy wax ay non ñoo ko taal ñoo ko kii non non non loolu mu amul ñoom moment bi gars yi nekk manifeste am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo ko toog seen seen biir manifesté wuñ mais am na ñoo xam ne dañ ay patriote lan keroog bi gars yi génn génnuñu tey ñeneen ñiy defar Ousmane Sonko sax du ñëpp ñooy génn am na ñoo xam ne fi toll ñoom c'est leur nature mënuñu génn sànni xeer wala mënuñu génn def mënuñu génn masse mënuñu xam nga ku ne ak li nga li nga mën waaw dañuy joxe seen xalaat xam nga li ma la wax mais boo bëggee jël ñëpp rek dugal leen ci benn saak njàng mi dafa kale kàcc Sénégal lépp taxaw tabaski bi ñu ngi ni jub tabaski bi mais Samaria qu'on se dit la vérité bu njëkk fii Dakar 20 jours avant mais forom xar yaa ngi si dëkk mais mais crise boobu mais crise bee tax dañoo ragal a indi seen xar nag mais la ma causé loolu yëpp ah, ah xam nga wala léegi li père doon wax foofu lay ñëwaat loolu loolu Red Black doon wax nee na wax ba léegi dara changé wul su ma fa nekkoon naa ne ko lii moo tax dara changé wul parce que Sénégal dañuy dañuy tourner autour du pot maanaam problème fi nekk duñ ko wax dañuy toog di dara tegu si yoon mu métti sénégalais la instant seen xol yi ñoo maanaam maanaam cont sénégalais kontaanoon seen xol dafa metti boo dee seet civil sénégalais man damay toog nit damay woo si sama rajo day jooy dam ñoom nañ neba jës ma dañu may woo dañuy jooy seen xol neexul ñen nanoo maam wax nii yëpp moo ko indi njàng wax moo ko indi économie bi ñuy wax prix yi ñu war a yokk te dëgg la dañuy yokk prix yi. yaa ngi maa fi prix yi dañu ko ah, yokk même bu moom laa expliqué dama ne problème yooyu yëpp. provisoire problème yooyu yëpp laa wax. problème yooyu yëpp ñuy dund. Mm-hmm. yëpp boo ko retourné ba indiwaat ko. Aliou la jëlee mooy Ousmane Sonko